léegi kuje gi bëgg Ibrahim Boubacar Keita abal leen dinañ ci waxtaan ci kanam tuuti ak yeneen ponk nu mu gën a yaatu ak Barka Ba nekk taskatu xabaar fii ci euh, groupe Futur Média euh, beneenu ponk bañ ca nar a toftal rek muy mbas meeg tolluwaayam fii ci Sénégal euh, tey jile test yi ñu def wàññeeku na naka noon it ñi amee jàngoro bi juróom benn fukk ak juróom-ñett la ñu ne bokk na ci ñeent fukk ak benn cas contact ñaar fukk ak juróom yu amee jàngoro bi xamuñu kan moo leen ko wàll ak ñaar yu jóge biti réew loolee lépp koy tënkale mbokk yi nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi kon mu di ab euh, édition spéciale bu ñu jagleel Malek la fa xew mu di ab euh, pëccëxoo ba léegi nag kenn amagu ci lu ci leer waaye jàppaleen ni tey jile ci suba euh, dañoo dégg ay coup de feu ñu tiré ko ci benn camp militaire bu soriwul dara ba ko ba ñu xëyee ba léegi nag xibaar yaa ngi bàyyeekoo fu ne ñu ngi naan am na sax ñun ci jàpp yenn ci leeral dañ ci ànd ak Mame Birame Diouf ay goo xam ne nag yëngu na lool teg sax yenn ci ay bëccëg yoo xam ne ni donte jamono ji coow amoon na ci ci fan yi di laaj kon kii di Ibrahima Boubacar Keïta gouvernement mu jóge fa waaye bi yoon ay militaire lañ xam ne ni kat ñoo jug taxaw waajal seen bopp ngir kon amal fa ab coup d'état loole nag tax kon ba dëkk ba jamono ji tàng lool yenn ci ay bërëb bokk na ci marché banque ak yenn ci administration bi eh, ñu eh, tëj ko loole nag jur conséquence yoo xam ne nii ña fay yeewoo foofee cëmali euh, tiit nañ lool ca mbir ma nu mu tëddee ñu xam ne sax yenn ci armée yi ñu jug ñoo ne am na ñu ñu teg loxo bokk na ci Moussa Timbene mi nekk président bu assemblée nationale bala Abdoulaye Daffé ma nga xam ni mooy ministre de l' moom mu am kon ay sox yu dégg ci suba si am ñu koy xamle ba tax kon foofee ca camp militaire ga nga xam moo nekk ca kat yi foofee kat kon lii di coup de feu yi la amee. foofee ci dëkk boobee sax dem ak dikk bi tagga tembe li nga xam mooy marché it ñu tëj ko ambassade bu France ak bu Norvège ba tey ci ay xibaar di xam ne ni ñu ngi wax seen i doomu réew ñu nekk foofee ca Mali ñu toog seen i kër ngir kat moytu te waajal seen bopp balaa coow li di gën a day waar Euh, jërëjëf euh, maam Biram njuuf euh, laata ñuy egsi ak Barkaba ci waxtaan bi dañuy dem fële ca Bamako daal di fay jokkoo ak suñu benn naataango moom ab taskatu xibaar la waaye nag tubaab lay làkk alors nous sommes en direct avec Oumar Diop journaliste au quotidien L'Impérial à Bamako Oumar Diop bonjour. Oumar Diop. avec la communication Oumar Diop. allo Omar Diop. Alors nous avons quelques difficultés à joindre Omar Diop apparemment. Il est euh, journaliste à, au quotidien L'Impartial à Bamako. Nous aurons certainement l'occasion de euh, alors ñu dellu si waat ci plateau bi rek ñëw ci euh, Barka Ba mu di taskatu xabaar fii ci groupe Futur Média Barka maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi lay nuyu soxna Naata. waaw yàgg ngaa couvrir Mali li fa xew tey jile ñu ngi naan pëcc xoola ba léegi kenn mënagu wax clairement lan moo fa xew am nga fa ay sources certainement. Mhm. yan xibaar lañ la jox. Sonaata mooy que ay soldats yu jógee benn camp militaire ñu xam ko foofu bu baax mu nekk à 15 kilomètres de ko muy camp militaire bu Kati moom la ñu wax ne ñoom ñoo fippu daal teg loxo ay euh, jëwriñ ci gouvernement bi ay ministre cité nañ ci ministre des affaires étrangères ci Ciré Dramé ministre euh, des finances euh, Abdoulaye Daffé ak yeneen i kilifa sax ci armée bi yu ñu ñu teg loxo et mbir yu mel noonu su amee su doon fippu kese la mutinerie lañ koy wax mu yem foofu duñ teg loxo kenn mu nekk loo xam ne xëñ na dañuy revendiquer ay jumtuwaay wala dañuy revendiquer ay payoor mm-hmm. waaye suñ demee ba teg loxo ñoo xam ne ay jëwriñ lañ ci nguur gi rek mën nañ jàpp kilifa gu mag gi la ñuy jëm wala loolu la ñuy jëm ñu ngi wax aussi que ñu ngi am na kolon buy waaj a jubal ORTM mooy euh, seen télévision nationale généralement loolu moom mooy nekk coup d'état mbir mi nag day rappeler trop loo xam ne dafa yu ñu weesu 2012 mooy camp kati boobu la coup d'état wu euh, capitaine Sanogo jóge woon ñoom tamit foofu ginnaaw ay euh, defet yu seen armée amoon ci xeex bi ñuy xeex jihadistes yi foofu ci seen euh, noor bi lañu meroon mu amoon ay militaires yu ñu rey ci ay anam yu yu naqare naqari mm-hmm. ba seeni soxna génn di protester militaires yi profité ci mer fipp boobu nag ñu jóge kat yi daal di yëg ba mu ko te dafa mel ni loolu moo nekkaat di di am mu nekk loo xam ne képp kuy seetlu situation bu Mali du la bett loolu lu lay bett kay mooy lu tax sax boobu ba léegi coup d'état amul ndaxte malheureusement coup d'état du boulet Mali. 68 mhm. euh, la commencé Moussa Traoré moo ko fa njëkkee 91 moom ci defoon ko. 2012 moom tamit ñu jëlee ko fa. tey fu mu nekk nii mënaguñu wax ne coup bi am na euh, wala yemb na waaye nuru na tey su su suñu waxoon ne nguur bi daanu na ñu annoncé ñu ko ñu gisaat ay militaires daal di toog ne daal daaneel nañ nguur gi du bett kenn. waaye li ci jaaxle li ci li ñu si jaaxal barka mooy yenn ci ay information yi nga xam ne jëlee nañ ko ci yenn kilifa euh, ku ci mel ni benn ministre nee na moom buggut a wax euh, wàllum tentative de coup d'état. Hmm. moom daal nee na ñu ngi topp situation bi tey ci suba ba léegi waaye dañuy dafa mel dañuy maintenir le flou maanaam bugguñoo waxagum lan moo xew waaye du ñàkk ni ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite réew bi xam ne la xew barka ci kanam tuuti dinañ egsi ak Abdoulaye Cissé mi ñu rejoindre léegi ci plateau bi. waaw xam nga coup d'état baat bu diis la loolu moo tax. Euh, kenn du ko yombul ko gaaw a assumer parce que baat bi dafa diis ak li muy rappeler africain yi ak li ñu xam ci coup d'état lu muy indi ci jéyee ak pëjoxoo bi nga tudd sànq ci réew moo tax ñu bëri dañ ciy teey tant que ñi nga xam ne ñoom ŋànkuñu nguur gi ba taxaw daal di def seen proclamation comme ni ñu ko bëree wax nga gis benn officier bu génn ne euh, daaneel dañ nguuru diw mënuñoo dëggalagum euh, terme coup d'état bi mu mu toll nii dañuy ñëpp dañuy suivre rek sinon ay spéculation la et puis comme ci jamonoy fake news lañ nekk ci réseaux sociaux yi hmm. tey ci mbir mi euh, di ko xool ba am lu officiel defe naa baax na ci waaw niñ leen ko waxee sànq Abdoulaye Cissé du suñu beneen naataango ngi lay nuyu rek. ah d'accord Ablaye Cissé dina ci kanam tuuti. <laughs> parce que ñu ne Omar Diop mi ngi en direct mu di euh, journaliste bi nekk foofu ca Bamako ñu euh, am euh, njortu bu rafet rek ni dinañ mën a jokkoo ak moom Omar Diop bonjour. Omar Diop est que vous nous entendez. Oui, Omar Diop, vous êtes en direct sur la TFM, vous nous entendez? allo Mar Diop encore des soucis avec la communication Omar Diop journaliste au quotidien L'Impartial alors euh, Barkaba ñu dellu si waat ñëwaat ci plateau bi waxaat ci jafe-jafe yooyu nga xam ne am nga ko yaa ngi koy tudd sànq nga ne ay fake news ci lu mel ni dafay bari ci jamonoy Burkina Faso tam gisoon nañ ko mais gis nañ ay images yu circulé notamment benn bu ñuy présenté ni kooku moom mooy instigateur peut-être coup d'état entre guillemets bi xew foofu noonu ci Mali loolu nit ñi a tey bu baax a baax laataa ñu koy euh, partager surtout booy wax ci euh, Ndiaye. waaw am na colonel buñ ci tudd wax nañ turam am na keneen tamit ñaari colonel euh, yu ñu tudd seen tur ne ñoom ñoo jiite mbir mi. Mm. mais yooyu mën na lu mën a nekk la euh, du du bett kenn waaye du mel noonu tant que dëggalaguñ ko wala ñi ñi ne ñoom ñoo ko jiite ñoom fësaluñ ko ba revendiquer ko nga joxe seen tur noonu sax euh, su dee safaan bi moom moo am dafa mel ni kon da leen jeter en pâture wala sax ci contexte yu mel ni mun nga leen sax mettre leur vie en en mais lu raw lu ci kanam raw. teewul bët. jar na jarul jarul yàqamti dem course coupe rek ne diw la. Mhm. à moins que ñu am ci lu nga xam ne lu wóor a wóor a wóor la ay tur ñu ngi circuler euh, ñu ngi koy suivre jot nañu ay photo mais comme euh, revendication bi officielle agul. Euh, man moom dama bu dee noppi na ñu mën a dem ci moom ndax gis nañu tey ci suba ba léegi laaj bi ñu njëkk a samp sax ba ñuy wax ci coup d'état dafay waaj a am fële ca Mali wala ay soldats ñoom ñoo génn di wane li leen métti li ñu njëkk a xañ na laaj mooy ndax ñu jege IBK lañu wala ñu jegewul IBK moo tax loolu ci liñ ciy basé wu d'habitude mooy ñi ñu naan dañ leen a jàpp ci euh, coup bi tey suba ba léegi ñu ngi wax Ablaye Cissé. waaw xam nga sax ci taarixu coup d'état yi nga xam ne nii mooy gën a gaaw a euh, tegu ci yoon ci bëtu nit ñi mooy bi nga xam ne chef d'état-major moo ko jiitee wala ay kàngam sax ci armée bi. maanaam généraux waaw bu dee généraux yi wala sax chef d'état-major moo ne gi dem na ba tollu jamono yo boo xam ne nanguwaat nañ légalité euh, euh, constitutionnelle bi téyel ko seen bopp militaires yi mais bu dee ay soldats la du moindre euh, grade bu dee sax ay colonel la en l'espèce ci lu ñu xalaat ci bii te ñoom téyewuñu armée bi gis nga yëf yi du teel a leer. tey xëy na euh, dégluwuñu sax président IBK mais euh, ministre de la défense Dembélé moom la ñuy gën a déglu tey pour xool moom est-ce que maitriser na situation wu état-major bi nga xam ne moom la jiite te Mali def di réew moo xam ne wax nañu lii kati la jóge mais dafa di réew moo xam ne bëri nay base militaire ay camp et puis yaatu na yaatuwaay boo xam ne mën ngaa ba ma Bamako sax ñu ne la Tombouctou wala Mopti wala feneen. parce que Mali di réew mu yaatu la tamit ñu bañ koo donc loolu yëpp day yokk ci confusion bi. Mm-hmm. ba tax na tey ñaar wala ñett la ñuy déglu président Ibrahima Boubacar te ci boppam. foog mu wax ñu dégg ko moom tamit war na sax à dellowaat delluwaat gëdd bi nga xam ne nii am na ko wax même bu mutinerie amee mu yem ci mutinerie rek foog président bi wax. su waxul it ministre de la défense am moom la ñuy gën a déglu tey pour xam ndax légalité constitutionnelle bi ñu ngi ak armée bi am déet. ñi nga xam ne nii ñoom la ñu soupçonné ñoom ñoo def mutinerie bi te ba fi mu toll nii mutinerie la ñuy wax. waxuñu waaye ministre de la défense moom nee na sax du mutinerie faf won ni xëy na li nekk di jouer actuellement. ku nekk aussi dana fexe ba euh, ne ñii ànd leen ak man bu leen topp di bu leen topp ça c'est en train de se aussi. xool ndax ñi nga xam ne ñoo sooke mbir yi léeg-léeg aussi sax ma riirandoo dafay am. ndax du jéem a nëpp nëppal tam. yooyu yëpp mën na nekk. moo tax ñu tey ci mais yëpp mën naa nekk. mais li ci ëpp solo mooy ñi nga xam ne def nañu ko dinañu jéem a def intox pour masse bi jàpp ni sotti na topp leen. souvent sax da ngay gis coup d'état bu amee ñu ne waa kan nangam def nañu allégeance à ñi jiite nangam ak nangam yooyu léeg-léeg sax mu basé wu ci rek jàpp ni def nañu ko sotti na jeex na mais boo xoolee fii ci taarix Afrique ci ci coup d'état yi nga xam ne nii mujj na am te mu jóge ci ay soldats bon ñoo xam ne nii de moindre euh, grade que généraux yi ñu ngi fàttali ay Kanouté ñu ngi ciy fàttali Isma Dadis Camara mais gis nga yooyu pour nga maîtriser ko sax après. problème la pour nga maitriser ba yaakaar ni ci premier jour yi am nga légalité bi nga xam ne moo lay permetre comme coup d'état la nga jël doole armée bi ne yaa ko yor yaa ko moom pour nit ñi nangul la mi effectivement doole ji yow yaa ko yor sax problème la hmm. donc loolu mooy situation wu Mali bi tey mais faw ñu xaarandi xëy na ba déglu bu dul président bi di ministre de la défense bu dul ñoom nag xëy na ñi nga xam ne ni ñoom la ñu joxoñ ni ñoom ñoo def mutinerie bi ñoom tamit parce que loo gis revendication bu ci amul rek dana jafe nga jiiñ ko nit. parce que ñu ngi naan tamit ñu ngi doon jëm barka juñu na ko sànq ORTM di nekk seen télévision nationale ñu ngi jéem a dem foofu tamit amaana foofu it xëy na bu ñu fa waxoon sax dinañ mën a am benn visibilité wala benn vision beaucoup plus claire ci li xew foofu noonu. yooyu sax gis nga genre coup d'état yu njëkk yi la nga xam ne bu amee. waaye Afrique nga dafa mel ni dellu tout le temps <laughs> ay ci ginnaaw donc bu yooyu di am li ñuy faral fi faral di njëkk dem tamit mooy télévision nationale pour wane ni jël nañ ko. pour mën a wax ak nit ñi mais gis nga tey même sans loolu réseaux sociaux yóbbu nañ ko de telle sorte que tey presque waa Mali ñëpp yëg nañu ni am na luy xew. Mhm. am na luy xew ci réew mi y a quelque chose qui est en cours maintenant légitimation bi souvent moom la nit ñi di wuti ci télévision nationale parce que peuple bi nga xam ne ni mooy revendiquer ñoom ñooy ñi gën a xarab souvent les médias d'État. mais xëy na légitimation bi moom la ñu wuti officiellement devant les médias d'État parce que ñooñu du ñi nga xam ne ñoom ñoo ëpp accès dans les médias d'État en temps normal donc peut-être légitimation li nga xam ne nii moom la ñuy def moom la ñuy wuti foofu ci médias d'État yi mais àla kulli haal bu fekkee ni li ñu def sotti na bien sûr que télé bi day def allégeance sax loolu moom kenn amu ci gis nga ko fan yee manifestation bi mu débordé bañ dem ci télévision bi may nañ leen sax ñu def déclaration yi ñu bëggoon def parce que yaakaaroon nañu ni finalement teg ñoom ñoo yor doole bi nga xam ne nii teg nañu leen ko donc espèce u forme d'allégeance la bu ñu demee ci télévision nationale bi ba mën koo yoral seen bopp ña fa nekk aussi nangul leen kilif gi defal leen li ñu bëgg loolu ci enjeu de enjeu de pouvoir ak enjeu de positionnement. d'accord lay concertation yooyu les Barkaba ak opposition bi euh, notamment M5 nga xamante ni daanaka moom moo ëmb lépp ñoom tamit xañ na waroon nañ leen mën a dégg depuis tey ci suba tam euh, ñu ñu ñu wax xañ na ci situation boobule euh, parce que booy xool ñoom li ñu bëgg mooy yoon am foofu noonu maanaam ordre constitutionnel kon lii bu demee ba nar am foofu ca Mali nekkul tam lu leen gënal xam nga ñoom dina jafe ci seen position ñu daal di teel a wax lu mel ni ku nekk da ngay da da ngay teey parce que ay mbirum armée la ay mbirum militaire la ñoom am na lu ñu doon xëccu mooy jëlee fa président Ibrahim Boubacar Keïta tey ñii su fekkee coup d'état bi dafa dëgg wala dafa am ñoom lu ñuy njëkk gën a ragal mooy ñu ne leen ñoom ñoo nekk ci ginnaaw militaire yi hmm. xañ na tamit agenda yi bokkuñu surtout que ci ni ñu wax naan jàpp nañ ñoom ci ñoom jàppuñu kenn exactement xam nga xam nga dëkk euh, yu mel ni su amee balaa mbir mi di feeñ euh, il faut nit ñi tey ci bu baax a baax parce que généralement mun na déparer mutinerie loolu lañu gisoon Côte d'Ivoire. Mm-hmm. ñoom euh, ay ay sous-officiers yoo nga xam ne sergent Ibrahim Koulibaly moo leen jiite woon ci début ay prime lañ doon réclamer ñu ne ay seen payoor dañoo demoon mission ONU fay ñu leen ñu daal di tiire quelques coups de feu au plateau président bi daal di tiit daal di daw. après ñu teg loxo nguur gi ñu gis ne y a vide ñu dem woyu général Robert Guèye teg ko foofu mais ci biir seen biir amoon na ñu nga xam ne ils étaient plus politiques que ñeneen ñi dañu amoon seen seen agenda mhm. tey ñi nga xam ne ñoom ñoo soxee mbir mi il faut ñu xam ndax affaire bi est-ce que lu ñu préparé la ñu prémédité ko ñu nekk lu ñu doon togg loo xam ne dañ doon xaar am occasion rek daal di euh, bu buruxlu pour euh, foqati nguur gi mhm. walla affaire bi dañ dañ cee dal xam nga loolu noonu loo xam ne c'est en cours mën ci wax lu lu bari te agenda yi dañ nara superposé wu nekk compétition mhm. parce que tey su tekkee militaires yi jël nañ nguur gi su fekkee daaneel nañ IBK ban taxawaay la ñuy am ak waa opposition bi est-ce que opposition bi loolu la doon xaar mhm. parce que opposition bi aussi amoon nañ seen seen seen calendrier mhm. est-ce que dañoo jokkoo est-ce que jokkoo wuñu est-ce que ku kat mooy nax keneen ki kat mooy jiitu keneen ki pëccoxoo su amee rek ku nekk même ñoom militaires yu ne dañu jël nguur gi wala ci kanam su dee dëggal nañ coup d'état bi di nga gis ku ñu yaakaaroon ne mooy jiite ki am keneen kenn déet sa waay man maa la gën a jekk ci place bi premier problème yi commencé am. donc euh, dañ ci tey daal. waaw voilà nga euh, nga baal ma rek ñu eggali ci kanam tuuti ñu demaat Bamako euh, jéem a jokkoo ak Omar Diop mu di journaliste foofu on espère que cette fois-ci c'est la bonne Omar Diop bonjour allô. allô. oui Omar Diop vous nous entendez. Alors voilà, je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien L'Impartial à Bamako. Euh, depuis ce matin, Omar Diop, on, entend des informations qui fusent de partout. est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe réellement sur le terrain euh, il paraît que tout serait parti euh, de l'émission d'une note sur le statut des hommes des et des sous-officiers devenir officiers. la note impose la détention des diplômes BA1 et BA2. Euh, les hommes des et les sous-officiers sont mécontents euh, de la situation, ce qui, a, ce qui dénote de cette quasi-mutinerie et le limogeage du colonel-major Ibrahim Nomoko. Euh, les de l'ordre les forces armées loyalistes euh, mettent en débandade les militants, euh, les mouvements sont plus pour sécuriser les personnalités et les lieux stratégiques du pays, contrairement à ce qui eh, pensent beaucoup. Il n'y a pas d'arrestation, mais plutôt une sécurisation des personnalités, mm. également un ratissage pour couper court à toute velléité de coup d'État. Pour le moment, euh, les jeunes sont sortis massivement, les jeunes du M5 RFP, et sont sortis massivement pour remplir la place de l'indépendance. Ils sont en train de crier à bas Ibeka ils sont en train de crier encore vive l'armée, vive l'armée. Mais pour le moment, on peut pas dire clairement ce qui se passe réellement à Bamako. Donc euh, je reste toujours à votre disposition. D'accord. D'accord. Alors Omar, euh, on comprend bien, il n'y a pas d'arrestation, vous dites. Bon, ce que j'aurais appris, paraît que c'est pour mieux les, les et non les arrêter. C'est ce que j'aurais appris. Mais quand même, j'ai vu de mes propres les porteurs d'uniformes accompagnés euh, des notabilités comme le président de l'Assemblée nationale, euh, encore le président de la République, Karim Keïta, et en même temps le premier ministre et le ministre de, des que moi-même j'ai assisté. Mm certains, Ils sont arrêtés, seront d'autres, ils ne sont pas arrêtés. Mais pour le moment, comme l'armée refuse de parler avec qui que ce soit, on est là, on reste toujours à l'écoute. Euh, dès que ça va viser quelque part, Inch'Allah, je vais vous donner l'information directe. D'accord. une dernière question, Omar Diop. Il n'y a pas d'information officielle émanant d'une quelconque autorité du pays en ce moment Pour le moment, on n'arrive même pas à les autorités. Personne a qui devrait faire une caravane aujourd'hui à 14 heures. Et ils ont anticipé pour eh, venir eh, occuper la place eh, de l'indépendance tout de Et les jeunes sont là, je vois aucun responsable parmi eux pour pouvoir les tendre le micro. Bon, malheureusement, je ne vois pas de, leader parmi ceux Ils sont en train d'acclamer les soldats qui passent et ils sont en train de brandir leurs mains en haut. juste pour dire que la victoire, Merci beaucoup. Merci Omar Diop, euh, notre confrère à Bamako, journaliste au quotidien L'Impartial qui était en direct avec nous. Kon Omar Diop ni ngeen ko déggee xanaa ñu jëm koo tënk rek barka moom li mu wax kay euh, leer na daanaka mooy nee na ñu jàppuñu kenn waaye dañuy jéem a xool nu ñuy wattoo seen kaaraange loolu la bu ma bu ma déggee bu baax. loolu la ñu wax te li ñuy waxtaan si suba ba léegi mooy pëcc xoo bi. Mhm. moom moo am ca Bamako. Mhm. waaw mais man yaakaaruma ne jàppuñu amul genn parce que lu mel nii su amee su doon euh, euh, nguur gi dañu nekk ak seen sago. wala mm-hmm. ñu ngi yore doole bu ñu yor di nga gis euh, président bi def. communiqué wala ministre de la défense. dalal dalal wala chef d' état major. li ñu njëkk a def mooy démentir mais ba fi ñu toll nii amul benn kilifa bu nga xam ne officiel la. Mm-hmm. jot naa rotal kàddu donc mën nañ jàpp ne. nekkuñu ci seen sago ñu ñu wax ne jàpp nañ leen pour le moment jàpp nañ leen lu ñu mënagul dëggal mooy est-ce que coup d'état la que euh, yemb na wala yembagul est que dina am euh, dinañ réussir wala du ñu réussir waaye moom président bi moom ak ay ministre am lu leer ba ba des lu am ba des mooy ñu ci seen seen sago téye téye guñu nguur gi nuñ ko teyee woon mm-hmm. euh, Abdoulaye Cissé yow tamit sa jàngat bu njëkk ci li Omar jot a wax fii ci li xew foofu ca Bamako li leen bàyyi sax ci kumpa kilifa. te gis nga euh, li ñu war a éviter mooy gis nga mouvement de masse yi. mbaboor gi di mbàbb di wuti place de l'indépendance. teg yi en plus. te loolu rek mën naa jur effet de masse bi nga xamante mën naa indi leneen loo xam ne taxul jóg sax nit ñi donc amuñu intérêt ñoom bàyyi ko muy law ñu ciy noppi li Barka wax dëgg la ñu ci seen sago en tout cas du seen coobare ci ñu bañ wax maintenant y a quelque chose qui se joue lan la xamuñu bon li ma doon wax rek président de la république ou ministre de la défense Dairou Dambélé ñu ñu ngi leen parce que ñooñu ñoo mën a ci situation bi ñu nekk nekkuñu situation élection nekkuñu situation wu leneen situation tension la boo xam ne nii xëy na ci ay militaire la jóge jusqu'à preuve du contraire donc foofu ñu mun a wax pour dalal xel yi te bàyyi pëccëxoo bi noonu muy dem effet de masse boobu mën na jur leneen loo xam ne sax nit ñi séntu wuñ koon parce que bu continuer mën na indi ay désordre boo xam ne mën na dem ci pillage te da ngay mujjee yow di dabu pour rétablir ordre bi nga xam ne nii xawoon na am tuuti sax avant ñuy wax waxu mutinerie bi te ba léegi mutinerie bi gis nga ko revendication bi leerul ci lan la jóge exactement parce que mutinerie bu war a dem ci coup d'état xëy na jël pouvoir moo koy tax a jóg mais fii njort nañ ni leneen la nit ñi ñi jóge mutinerie bi en tout cas leneen moo leen yëkkati woon mais xëy na di bàyyi situation bi muy dem di dem di dem di daw di dem di dem di law mooy indi finalement pouvoir bi nekk ci xottu gerte ba xëy na nguuru président Ibrahima Boubacar Keïta xaj ci bu fekkee ni teelu la wax teelu la jël ay disposition mm-hmm. euh, Bakka ndax lii du gën a euh, yànqal gën a oyofal Ibrahima Boubacar Keïta ak position boobu léegi ñu ngi sàkku mu dem ci semaine bi sax M5 prévoir na ay manifes ay manifestation il faut le rappeler ndax du loolu tamit moo tax askan wi sax demaale ñoom ñëpp bëgg a daje foofu ci centre ville bi. heureusement bu ma waxee ne yànqal moom mooy oyofal parce que sama lay tooñ non mais lu am ba des mooy euh, nguur moom ak état presque amatul woon Mali mm-hmm. moo tax soo waxee coup d'état sax tur bi moom mooy moom mooy rek mooy coup d'état fu ñu koy def mooy fu am état mm-hmm. mais Mali état presque amatu fa woon ndax euh, situation bi nu mu demee noor bi yëpp gis nañ ne autorité euh, groupe armé yi daanaka ñoo ci teg seen loxo le centre du pays gis nañ conflit communautaire bu fa bu fa nekk donc dafa mel ni soo génnee ko autorité IBK fa la fa la yam et encore depuis quelques jours ak contestation yu fa ñoom imam di ko indi bi dafa gën daf ko gën a néewal doole même su mutinerie bi amul woon même su transformé wul en coup d'état IBK président la bi nga xam ne li ko desee ci nguur euh, ak li ko desee ci gëdd bëreetul woon donc situation bi dafay gën a doy waar te su dee coup d'état bi am na mu yemb non seulement échec wu IBK la mais d'abord échec wu MINUSMA la communauté internationale bi ak surtout ak France ak ak CEDEAO parce que ñu bëri jàppoon nañ ne soo gisee malgré situation bi nu mu doyee waar IBK di continuer di ŋànku tuuti nguur gi mhm. c' parce que communauté internationale bi ñu ngi fa ak présence dissuasive euh, force Barkhane yi ak euh, bu MINUSMA mhm. ñoom ñoo tax que militaires yi ñemewuñ def coup d' mais tey suñu demee ba ñemee mutine réew te gisaguñu benn force MINUSMA daal di ñëw euh, artu leen gisuñu waa Barxaan daal di def mouvement pour arrêter leen pour le moment en tout cas ñu ngi xaar ba xam fii ak ngoon nan lay demee parce que situation mënul ko ni mm-hmm. confusion yi su amee très rapidement soit day nekk coup ñu teg loxo IBK jëlee ko fi ci nguur gi wala boobu bu rétablir autorité am mu am ay affrontement euh, wala mutin yi euh, dellu ginnaaw mais lii moom fii ak une heure de temps wala deux heures de temps il faut mu am situation bu leer mm-hmm. donc échec la pour IBK euh, d'abord ndax nu mu ŋànkee nguur gi ci premier mandat am ci mais surtout aussi pour la communauté internationale parce que suñ demee tey bay Mali di amaat mutinerie wala sax ñu naan coup d'état ak xaalis bu ñu fa dugal ak lu ñu tàggat seen force armee ak jëm leen jàppale pour téye euh, dëkk bi donc euh, d'abord échec communauté internationale. surtout que ñu ngi naan tey ci suba ba léegi la te 13h jot na maanaam booy xool ay waxtu yu yaatu xew na fi. Mm. loolu euh, IBK yaa ngi koy wax sànq moom ñi nga xamante ne ñoo di opposants yi sàkk woon na apparemment pour waxtaan ak ñoom waaye ñooñ dañ ko koo lànkal mm. mm. waa a xam nga CEDEAO ñoom non seulement dañu xaw a yéex a def euh, médiation bi parce que mënuñu woon pour des raisons diplomatiques IBK ñu daal ko falaat mu nekk seen nattango ñoom dañuy am principe boo xam ne mooy de non ingérence euh, dans les affaires intérieures d'un mm, pays mooy koo xam ne sa nawle la doo gaaw ñëw nga naan da ngay atte xeex biir këram da nga koy bàyyil sagoom mm-hmm. moom mu danga nga koy jox gëddam mais malheureusement situation Mali bi IBK wane na moom joreetul woon dëkk bi parce que déjà li ko fa téye woon mooy force étrangère yi ñoom ñoo tax euh, mu toog fa ba ba léegi ñooñu lu tax defuñu ñoom benn mouvement tey pour pour aar euh, aar ko pour jàppale ko est-ce que aussi ça ne veut pas dire que militaires yi dafa am lu ñu leen dee wala lu ñu dégg wala situation moo dem ba egg na ci benn euh, guuta boo xam ne dañu ne ñun daal nañ nañ jëm a foqati nguur gi parce que même waa France wala même waa CEDEAO mënuñu mënatuñ ñoo tere def li ñu bëgg def parce que waa ji na fi jóge ak peut-être mouvement de foule yu ñu gis imam di ko jiite ko ci Mali moom moo tax ba ñu ne kii daal euh, léegi suñ ko bu ma xee mu mu daanu mm-hmm. ak lu ci munti am ci scénario yooyu ñuy wax lu mu lay wax rek la échec la échec d'abord personnel parce que moom moo sàq woon jiite Mali. Mhm. ci premier mandat bi muy ñëw dafa ne woon day rétablir autorité defu ko gars yi mayaat ko beneen chance pour euh, mu toogaat. mu mbir mi mel ni dafa gën a yées dafa gën a dellu ginnaaw loo mali li dafa dafa ragal dafa war a tiitlu dafa war a ragallu parce que lu mot cinq ba six président ouest africain dem dañ fa def médiation médiation bi échoué et loolu noonu mun na nekk ne feu vert la quelque part pour euh, ñi bëggoon ñi bëggoon passer à l'action mooy wañ la ko IBK te lu am Mali nañ ci bàyyi xel bu baax lu nekk actuellement en cours Côte d'Ivoire euh, euh, fële. Euh, Côte d'Ivoire troisième mandat bi déjà commencé gul am na ay ay morts. Mm-hmm. Guinée xam nañ situation presque chaque semaine y avait des des morts ci ci manifestation yi. Mauritanie bi nga xam ne nii bi ñu bi ñu jege te mu amoon alternance tension politique bi egg na fu nga xam ne jéggi na dayo parce que depuis démb président bi fa denkoon Abdelaziz militaire ay ay policiers ñu ngi koy ñu ngi koy enquête mu mel ni foo gestu ci ci région bi Sénégal pour le moment moom moo fi moo fi taneegum dañ ñaan yàlla euh, mu dara bañ ñoo laal waaye euh, tey na xel ba pare lii nii ci ak covid bi dafa am ay gëstukat yu xarañ yu nekk Quai d'Orsay dañoo bindoon benn note diplomatique ñu dindee ko ñu tuddee ko l'effet Pangola ñu ne soo moytuwul ak covid bi as néew lu taxoon sax état sahélien yi di xaw a résister dinañ gën a ñu tudd ci état yu mel ni Mali yu mel ni Burkina ñu ne soo moytul ñooñu ñooy njëkk a nërmeelu yóbbaale yeneen yeneen état hmm. te dafa mel ni li si xaar boobu bi ñu ko génnee ñu ngi doon wax ne wayi tubaab yi dañ ñoo yi dañ ñu yëpp mais ay gëstukat lañ te hmm. loolu képp ko am seetlu hmm. soo seetee ñun suñu nguur yi nu ñu téye suñu suñu état yi nga xam ne lii mënul continuer te seen ndëgër laay bëriwul sutura yàlla rek moo fi nekk mais armée yi du ay armée yu professionnel état yi amuñu jumtukaay amuñu ñu yenn bànqaas yi tak nu ñu nu seen dëkk yi ci corruption ci dérive familiale comme lu am euh, Mali moindre mouvement de foule wala contestation mën na normal seen seen réew. Ah, étincelle lay doon euh, barke ci li nga daanelee sànq muy réew yi nga xamante ne ñoom ñoo seq Sahel euh, Abdoulaye Cissé lu ci mel ni Mauritanie wax na ko li fa xew fan yi yëpp loolu tamit dafay wane ni xaj na tubaab yi nga xamante ni ñoom ñoo leen di jàppale ngir ñu indiwaat dal ak jàmm xeex xeex wàllum terrorisme jihadiste ak lu ni mel jaarale ko ci lu mel ni g nag ñu fàttali ni Sénégal sax nag bokkul ci G5 boobu loolu loolu nekk na menace yoo xamante ni xëy na bu ñu demee ba ci kanam li muy jur di mara day taali xëy na duñ toog di ko nettali. waaw xam nga loolu yëpp état yooyu yëpp li seen problème mooy stabilité bi ñu war a am ci biir réew mi ba mu dal moom la ñu amul Mali boo xoolee président IBK mu ngi falu août 2018 parce que mu ngi def ñaar at mais bi mu faloo. ba léegi amul fenn foo xamante ne nii mën nga ne lii jëfu président la bu yor pouvoir bi c'est organiser na sax ay concertation nationale pour yaatal pour ne leen waa kaay leen ñu toog waxtaane waat réew mi conclusion ya nga xam ne ni moo ci génn ñii nee nañu xaatim nañu pour waxtaan ak ña nga xam ne ñooy fipp ya ñi ñuy jiiñ ay islamiste ak yooyu ñu dem waxtaan ak ñoom mais loolu dangay gis ni dafay xaw a safaanoo ak communauté internationale bi leen di jàppale te di bëgg bu ñu mës di mën a négocier ak ñoo xamante ni ay islamiste la ñuy wuyoo. wala ñu koy bu ay terroriste hmm. donc ba léegi conclusion concertation yooyu sax moom kilifteef gi mënula jël dogal ci ne li concertation bi jur dinaa ko doxal ci biir réew mi. ñaareel ba nga dem élection ak say ñooñ gañe nga ñu contester mais mënoo fexe ba. ñu jox la légitimité bi c'est-à-dire que opposition bi ba léegi ci yoonu contestation président Ibrahima Boubacar Keïta boobu la nekk te boo moytul boobu ñu doon demaat yeneen élection ci loolu la ñuy nekk ñu organiser fi élection ci diggante bi yoo xam ne nii ku ne xam ni Covid 19 bii la ñu waroon a tal Mali ñu tolloon ci réew yëpp a ngi préparé wu mu ngi dugg ci Sénégal Mali di organiser élection législative yoo xam ne nii déjà élection présidentielle ku ne xam na ni. déjà organisé wuñ ko sur une grande partie du territoire bi nga xam ne def nañu présidentielle ba parce que <laughs> la woon boori tëmbut yëpp. am na boor yoo xam ne administration territoriale moom amatu fa sax. yoon dafa nekkul sax. amatu fa voilà nekku fa te ña ñuy yebal du ñu fa dem observateur internationaux ci seen bopp. ci seen rapport ñu ne waaw ñun ci li ñu observé la ñuy def suñu rapport nangu nañu ni observé wu ñu boor bee yëpp demuñu fa ndax ñoom it Et ils ont évoqué quand même chose très grave. Ils ont évoqué des raisons de sécurité. waa léegi ana ñu fay dund nag xanaa ñooñu du ay malien mérité wuñu ñoom am sécurité gis nga cest à ñëpp a ci situation wu Mali bi ci ci partie territoire boobu nga xam ne kenn administré tu ko bu ñu demee bu observateur international lu ñu dem pour des raisons de sécurité Union européenne yónni leen ñu ne demuñu boor boobu de wax dëgg fa yàlla pour de raisons de sécurité waa léegi ña fay dund ñoom xanaa mérité wuñu am sécurité wala boog boolewuñu leen pour ne ay citoyens maliens lañ ñu am droit am sécurité am encadrement bi ci war am njàng am lépp loo xam ne nit da koy am finalement dañu abandonné presque territoire yooyu à ces mouvements yu ñuy traité de bon islamiste de terroriste finalement loolu moo fa nekk Mali am ay incidents yoo xamante ne nii diggante bodde compte ci biir xeet la incident entre peul ak chasseur ak yeneen ak yeneen mais doo sentir kilifteefu président Ibrahima Boubacar Keïta ci sax mu yëkkati kàddoom ci ne lii dootu fi am wala ñi ko def dinañ leen jaarale yoon ci békki yi la nekk cest à day soox mandat bi moom mandat buy soox la rek c'est-à-dire amul lenn loo xam ne ni lu muy teg la lu koy joxaat kilifteef gi mu wane ni mu ngi administré Mali dëggantaan éducation moom waxaale wuñu ko ñoom lépp bañ jógee ci seen états généraux de l'éducation recommandation yi def ba léegi mënuñ ko def Mali ci grève la boo xamante ni la nekk boo xam ne xamuñu sax finalement grève dañu dem ba nit ñi dañoo dem ba dañoo fàtte ni école am na tellement grève bi dafa yàgg hmm, c'est-à-dire grève bi dem na ba amatul moo door mais nit ñaa ngi toog seen kër léegi ci wàllum sécurité Cissé euh, Barka Ba junj na ko sànq muy force française yi muy Barkhane mi nekk foofu ak MINUSMA di euh, mission maintien de la paix bu Nations Unies ndax ñu mel ni dañoo nekk en retrait tuuti wala dañoo xaw seetaan wala dañoo xaw a mer nan lañ ko mën a jàngee. tey xay na dañuy nangu aussi que ni ñoom ci seen bopp léeg-léeg ñu nekk ci situation boo xam ne ni daf leen di ëpp loxo loolu foog ñu nangul leen ko cest dire ñoom léeg intention bu baax la ñuy ñëwee intention bi nag xëy na seen i intérêt ngi ci loolu moom kenn du leen ko xam nga nekk fi sax di ci français yi seen intérêt leen fi indéeg yooyu dafa la dépassé. Mm. ndax nit doo demul foo amul intérêt. loolu bu ñu ko réglé après mën nañu waxtaan ci li ci des mais ñoom ci seen bopp dañuy nekk ci situation boo xam dañuy embourbé wu de telle sorte leen a dépassé. déjà Niger mi ngi ne am na seen i ressortissants yoo xamante ni faat eh, nañ ñuy def. Mm. ci weer yu mujj yi rek ay incident terroriste yoo xam ne ci biir centre ville bi lay amee ba pare nag ña ko def mën a rëcc xam nga par exemple ay terrorisme en Europe day am kenn mënul échapper États-Unis sax dañ leen di frapper mais lii différence bi foofu boo defee acte terroriste boo ko defee la suba balaa ngoon ñu jàpp la fàttaliku les frères Kouachi pourtant ba ñu koy def France di dóor Charlie presque amul téema lu dul vidéo caméra yi nga xam filmé nañ leen mais kenn gisul seeni visage ak yooyu mais balaa ngoon piste nañ leen localiser leen daw nañ ba génn région Île-de-France région Paris bi mais localiser nañ leen Amérique it noonu la c'est-à-dire kenn mënu la préserver wooti ci terroriste koo xam ne nii jël na am ne man tey day bëgg naa dem barab sàng bëgg naa fa def carnage xëy na mënoo ko gàntal parce que doo ko ko fogee mais bu ko defee du rëcc mais suñu réew yi rek ngay gis nit day ñëw dóor base militaire ba ci biir dëkk ba ci en pleine capitale ba pare ñu naan la ay pick-up la jël daw nañu rëcc nañu. waaw y a les aussi jumtukaay ak yaatuwaay bi ak yaatuwaay bi nga xam ne mënuñoo. mënuñoo couvrir zone bi yëpp mais parce que mission de Barkhane yooyu ñoom de police. ñoom ñooy ñëw mais dañu ñëw en appui dañu en en appui dañu ñëw di jàppale force force euh, yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci réew mi euh, pour yu mel noonu bu amee ñu leen ci jàppale Mali loolu lay faral di def yenn xam ne nag réew mu ne yaa ko hmm. mission de police wala mission sax ci biir dëkk bi hmm. am na loo xam ne militaire bu ñu la koy defal am na loo xam ne yaa ko moomal sa bopp ay mission de police dàq ci biir dëkk bi xanaa nag xalaatuñu gis ay militaires yi euh, Nations Unies ñëw di dàqante nit ci biir dëkk bi quand te loolu suñu état yi ci loolu la ñu démissionné wékk lépp aussi ci force yooyu mënul nekk mais ñoom ci seen bopp. Mm-hmm. affaire daf leen ëpp doole ba day poser problème sax ci seen opinion publique léeg bu ñu mënoon génn fii génn fi mais génn fi sax daf leen a diis. te xamuñu aussi ñoom nan la ñuy maîtriser situation parce que souvent aussi lii am mooy euh, dafay développer benn sentiment de ostra euh, de de xénophobie sax par rapport ak ñoom ñoom dañuy dem ba bëgg xoolal euh, convocation wu po bi bi président Macron convoqué cinq présidents G5 Sahel ne leen nag da ngeen di ñëw. wax ma ci kanamu àdduna bi yëpp notamment devant mon opinion publique parce que loolu la ci doon wut que yéen a wax ñu ñëw dimbale leen am déet. c'est-à-dire la question était claire c'était en réponse yi amoon ci naan na leen force française yi abal. mais kooku est-ce qu'il n'est pas dans moom président France loolu mënuñ ko ko reprocher ñun mais ñun dañuy bàyyi suñu chef d'État di ko ko reprocher moom. Hmm. alors que suñu chef d'État ñoom ñoo xaatim li tax mu ñëw fi. mais ñoom ci li nga xam ne mooy seen responsabilité parce que dañ ci démissionner sur toute la ligne. boo yoree état man bëggoon naa xam ka nga xam ne mooy bu dund Tombouctou wala feneen ak feneen est-ce que amul les mêmes droits que ki nekk à Bamako pour des raisons de sécurité ba administration centrale ak président bi ci boppam nangu ni waaw fee vraiment amul sécurité xam nga fii suñu Sénégal gi xam nga fii lan lañ fii gën a bàkk ñun intégrité territoire te loolu je pense que c'est très bien fii Sénégal kenn ku xalaat nii parcelle de territoire be nangam échappé na état da ngay gis état day affirmer waat son autorité et ça c'est très bien mais Mali rek ngay gis ñu nangu nii partie de territoire bi day administré tuñ ko mais grawul nañu gérer li nekk Bamako et autour ci centre bi noonu rek te loolu. loolu jëm yaatuwaay yaatuwaay bi tamit du benn Abdoulaye Cissé. mais Marc yaatuwaayu territoire avantage la. Hmm. je pense que tey. <laughs> waaye Mali <laughs> ñoom jamono ji moom xanaa handicap la ci ñoom moom daanaka. Ah, mais c'est clair que buñ ko administré toujours handicap lay doon. Oh, voilà euh, Barke kenn mënut a wax situation sécuritaire bi foofu ca Mali te waxuñu la kaasu Mayla Cissé. Hmm. nekk na loo xamante ni tam lu doy waar la te dafa mel ni Mali dañoo dem ba léegi Soumaïla Cissé bokkatul dañ ko dañ ko fàtte. effectivement dafa mel dañ ko fàtte muy lu doy waar parce nga ki nga xam ne moom mooy chef opposition ñu teg ko loxo déjà teg ko loxo bi euh, ci tournée la doon dem. élection élection campagne euh, campagne législative. nguur gi joxu ko kaa kaaraange bu mot bi nga tax bu tax ne kenn munu ko faagaagal wala ñu teg ko loxo loolu déjà mooy wane lajj euh, ci côté sécuritaire bu état bi def ñu ne waaye déet ba fii ñu nekk ni kenn xamul kan moo ko teg loxo parce que ñu ko teg loxo ñi defuñu euh, communiqué officiel revendiqué ko généralement Euh, su doon euh, ñu ko tàmm def yi groupe yi ñu xam ni suñ tegee kenn loxo dañ koy filmer wala ñu daal def communiqué ñu ne ñun tel groupe ñun ñoo teg loxo diw ndax lii ak lii ak lii ak lii mais dañ dafa am ñu ñu njort ne ñoom ñoo ko def parce que ci zone boobu seen groupe bi moo fay gën a opérer di faral di def ay euh, ay ñaawteef mais ba léegi officielul ba pare président bi daal di def benn déclaration ne ñun xam nañ fu waaj yi nekk te demul jëli ko. te nee mi ngi dund ba léegi. te leeralagul mbir mi loolu lépp yëpp bokk na ci li nga xam ne euh, nërmel na nguuru IBK yokku confusion ci ci réew mi et c'est c'est très malheureux tey euh, Mali c'est-à-dire que dañu nekk ci benn situation descente aux enfers boo xam ne. Mm-hmm. xam nga réew mën nga. affronter benn crise boo xam ne crise bu metti la mais mu am ay bànqaas yoo xam ne da nga ko ŋànk ñun suñu crise bu gën a metti bi ñuy bi ñu jànkonteel deppi que l' état et l' état c' était la crise casamançaise metti woon na ci yenn période di metti bu baax a baax a baax waaye état bi def na kem kàttanam ba. rebelle yi mosuñu contrôler benn centimètre carré boo xam ne dafa échappé contrôle état bi. Mhm. dinañ def li ñuy def ñu daal di daw parfois ñu sonal armée bi waaye dem ba libérer benn territoire officiel teg ci seen loxo loolu mosul am. yàlla dimbali nañu ba ñu ba ñu gérer crise bi euh, jeexul totalement mais lu ci gënoon metti fay nañ ko mais tey ay état yu mel ni Mali dañu wane fayt. faytu état bi sur sur tous les plans fu ñu leen nit ñi doon xaar yaakaar ne dëkk bi ak territoire bi nu mu toll wala ak ñoom nu ñu fiere mhm. yore nañ loolu ndekete luy tax état di ko di téye ñi koy wax état mooy kaaraange bi musu fa musu fa presque nekk depuis coup d'état wu 68 bi ba coup d'état wu Toumani Touré ndekete armée bi xottu la woon euh, et loolu gisaguñu lu ko saafaraal ba léegi mission Nations Unies yi ñu ngi fay ñëw actuellement Mali bokk na ci dëkk yu ñu gën a dimbali sur le plan euh, militaire pour tàggat seeni force waaye gis nañ ne IBK ak ñoñam foqale nañ foqale boo xam ne ak euh, lajj lajj boo xam ne dafa jël doomam mi nga xam ne tey bokk na ci problème mu crise Mali bi. il faut ñu tudd ko. Karim Keita. Mm-hmm. te mu nekk turandoo beneen Karim bi ñu xamoon fii boo xam ne aussi papam gis nañ nu mu ko. teg ci ci ci ay guuta yu mu ko yu mu ko dugaloon ñu yaakaaroon ne ñoom dinañ ci tiire ay leçon mais tiire wuñ ci ay leçon papa ji daal di ko jël dugal ko ci biir nguur gi yóbbu ko président euh, commission défense assemblée te nga xam ne amul woon benn expérience te commission defence bi moo gën a am solo ci kaw situation Mali parce que ñoom ñoo waroon jënd ay ngànnaay ñoom ñoo war a xool nan la ñu tabaxaatee seen armée lu ñu gis mooy xale bi euh, dafa ñëw presque nekk vice président di def lu ko neex ci biir Mali nit ñi soupçonné dafa enrichir bu baax a baax a baax a baax moom ak ay généraux yoo xam ne jàpp dañ ne naa yu ñu jënd yi dañ ci am ay commission gis ne dañuy jënd ay hélicoptères hélicoptères yi su su waree dem xeex wala daal di dem euh, répliquer ci ay attaques djihadistes ñu ne pièces na réchange yi baaxul mu mel ni sabotage la en fait boo xam ne euh, IBK ak euh, nguuram moom la moom lañ def te sabotage boobu tey moom moo moo jur conséquence yi yëpp te du moom rek nag bëri na ci ay naatango ci ci sous région question bi terrorisme bi dëgg la dafa am problème bu dal ci kaw suñu état yi la euh, pauvreté bi dëgg la mais ñoom nu ñu téyee nguur gi ak nu ñuy séddoowee di pàccoo nguur moom moo nekk di law ba nga xam ne lu leen xawoon dese ci ci ci ci ci autorité dafay normal complètement te loolu lu ñëw dal seen kaw rek dafay dafay yomb faagal faagaagal leen. Hmm, te daanaka jafe-jafe yépp ci foofu la jógee muy ñoom ni ñu teewee seen nguur gi frustration bi euh, Barka doon wax sànq Abdoulaye Cissé xañ na loolu mën na en partie expliquer li nga xamante ni sentiment bi nga xam ne militaires yi war nañ koo mën a am foofu la ci Mali ñu war leen a jox ay jumtukaay yu doy ñu leen a ñu ko ñu leen di yóbbu au front euh, attaques yi ñu leen di rey li ñu rey ci ñoom kenn xamul nu mu toll. non Mali situation bi gis nga situation population bi metti na mais wu armée bi ak ñi nga xam ne ñooy seeni militaire ñoo gën a metti la sax parce que euh, jumtukaay amuñu ko fayoor bi moom lu yàlla xam doy na c'est-à-dire da ngay gis ci camp militaire militaire yi di sol ay carax loolu am na gis nga bi ñu leen fekkee song leen ba defoon fa ay ñaawteef c'était benn camp bu nekk aux abords de la capitale d'ailleurs bi ñu bi ñu dawee ba nit ñi di filmer mais gis nga c'est-à-dire militaires yi léeg-léeg ngay gis eh, équipement bu mat équipement bi nga xam ne mooy équipement militaire sax amuñu ko. ñoom eh, ñi ñu wax terroriste sax ñoo leen gën a équipé ndax bu ñu ñëwee di leen song ñoom ñooy faf daw bàyyi leen fa. loolu mooy tax ñuy ñëw ba ci biir dëkk bi di fa def li ñu fay def ba pare di daw di mën a rëcc. parce que mënoon nañ def sax ñu ne à la périphérie lañ nekk di def li ñuy def mais léegi dañuy ñëw ba ci camp militaire yi nga xam ne ci biir dëkk bi la nekk def fa li ñuy def te dinañ échappé. ñoom ñoo gën a équipé ñi nga xam ne nii ñoom ñoo war a xeex ak ñoom te loolu état moo ko def état aussi souveraineté mu ngi aaju ci li nga xam ne ni mooy dooleem. te pourtant bu défilé amee <laughs> défilé militaire bu amee nga gis ñu parade wane ni am nañu équipement am nañu nangam ak nangam mais loolu dafa mel ni cest à nax suñu bopp boobu loolu lañu war di bàyyi parce que loolu li ngay wane noonu bis boo ko soxlaa war nga ko mën a génnee mais bis boo ko soxlaa day mel ni da ko abal sax adversaire bi donc loolu mooy situation bi eh, xoolal situation wu euh, foog ñu taxaw ci du Soumaïla Cissé c'est-à-dire c'est pas n'importe quel opposant mooy le principal moom moo dem deuxième tour ak Ibrahima Boubacar Keïta bu dul dara sax moom bi ñu génnee ci élection présidentielle dafa woote désobéissance civile ne d'accordul du ñu reconnaître nguuru Ibrahima Boubacar Keïta mais dafa dem ba xam ni loolu yëpp ci kaw Mali lay këpp ci ñoom ñëpp lay këpp parce que situation Mali toll na situation boo xamante ne xëy na puus mu jéem a dem moo gën sax jéem a suuxal affaire yi. ñu toog di seetaan ba ñu dem ci élection législative yi nga xam ne nii ci la ko jàppee c'est-à-dire que loolu jaroon na bu doon état bu responsable la mais jaroon nañu dakkal processus bi. parce que quand ku ko nattee ci sa bopp lañ mais duñ ay ennemis mais ñu jàpp ko en pleine campagne électorale ñu continuer campagne mel ni il s'est rien passé na quand réew mi taxaw ñu ne principal opposant bi moom la ñu jàpp te état bi dina def lu mu mën pour jël parce que pour mooy que ça reporté nañ fi ay élections. te mars la ba léegi sa fait cinq mois maanaam juróomi weer a ngi nii. ba te kenn xamul ndax mi ngi dund am mi ngi dee looloo ci gën a doy waar. no euh, euh, finalement da dem ba yaakaar ne xëy na li ñu ko téye sax dafa am ñu mu arrangé doo xam. mais ay famille am xëy na ñu ngi koy réclamer. force politique yi ànd ak moom ñu ngi koy rek te force politique yooyu ñoo retrouvé wu aussi dans mouvement de contestation bi nga xam ne nii mooy jib mooy jib di jib di jib donte jëluñu le leadership. ndax imam dikko moom moo ko jiite mais moom mouvement yooyu ñoom ñoo ci nekk porte parole yu bëri la Cissé ci coalition Soumaïla Cissé lañ nekkoon jàppale ko ci deuxième ci premier tour bi sax moom la ñu àndaloon bi ñu demee deuxième tour aussi ñu gën ko renforcer donc loolu moo lay wan ni contestation bi nekk ci autour du président Ibrahima Boubacar lu yàgg la mais erreur bi muy def mooy dafa gën a fédéré ñi nga xam ne yëpp ñu ngi am ay frustration bu ci militaire yi yokkoo nag tey ci li nga xam ne nii mutinerie rek la jógee. xamuñu ci lan lay dérivé defe naa ni day ëpp déjà kujjee politique gi société bi Mali dem na situation boo xam ne nii ba ci réalité bi mais dañuy jaay essence ñii ci mbedd mi walaatu essence pour nga def sa moto pour dem xam nga loolu situation réew bu demee ba toll foofu nga xam ne cest ndool dire na élection yi nag <laughs> élection yi nga xam ne ni moom moo ko fal gis nga nit boo demee ba élection yi nga xam ne moom moo la fal ñëpp jàpp nii légitimuloo parce que da nga ko da nga ko lijjanti observateur internationaux yi toog reconnaître xëy na ne processus bi day li ñu gis jaar na yoon mais lañu gisul nag xamuñu ci dara mënuñ cee wax mm. la ñu gisul loolu moo ëlëm nit ñi te la ñu gisul loolu nit ñi dañuy jàpp ni sax ci tayeefu quand président Ibrahima Boubacar Keïta ndax moom moo amoon responsabilité mettre la sécurité partout ci réew mi élection yi mën a am fépp dañuy yaakaar ni sax léeg-léeg fa élection yi amul fiefu ñeneen ñi la wala arrangé wu ko woon moom ñu bàyyi mu jaxasoo foofu ñu daal di ñu daal def leneen donc loolu yëpp day wane ni euh, moom nguur gi yàgg naa yàng ci ay loxoom même ni mu jëlee deuxième mandat bi taxul mu téye ko légitimité bi ko peuple bi jox ba falaat ko taxul mu gën wone ni am na am na ci doole depuis deux ans mu ngi soox rek. Mm, ah, Abdoulaye Cissé Barka ba ñu euh, daal di xañ na tëjee rek ci euh, imam euh, Mahmoud Dicko mu di leadership am ci jamono ji sànq sax avant ñuy jël suñu naataango bi nekk ci ba ma ko am na loo doon expliquer nga ne lii bu fekkente ni lu am la ba ñu dem ba ci biir dina am jafe-jafe ci kan moo war a ànd ak kan ak kan moo war a def lan. te jamono ji dafa mel ni imaam Dicko moom moo positionné wu daanaka. waaw mais xam nga imaam ko moom euh, mbir mi def ci tey. Hmm. parce que plusieurs fois wane na ne xëñ na moom moom mooy autorité morale euh, contestation yi. Hmm. waaye plusieurs fois nee na moom soxlawul jiite dara. Hmm. du du du candidat ci dara barki dem rek mu ngi ko doon gën a fësalaat ndax situation dafa xaw a nekk situation bu particulière moo jiite euh, ku jegi fu mu toll nii par la force des chose waaye nekkul candidat xam nga su doon dafa ne man dama bëgg su waa ji poussé ban ba toog wala dafa créer benn mouvement politique mais loolu yëpp nee na soxlawu ci dara donc loolu euh, dafa tax situation bi mu nekk lu gën a inédite parce que ci biir mouvement bu mu jiite bi ay mouvement société civile dañ cee fës. Mm-hmm. ay parti politique classique euh, opposition dañ cee dañ cee fës. donc mu mel ni tey ñoom sax suñ fa jëlee woon IBK su dul woon coup d'état dafa am moom ban taxawaay lay taxawaay. est-ce que xarañam ak muusam moo ko may mu def comme Khomeini lu mu defoon en Iran. daal di xam nga soo yoree nguur dëggantaan am na ñoo xam ne ñu yore nguur dëggantaan yi soxla wuñu ñu takkal leen grade. dans l'ombre la ñuy topp daal di jël yeneen nit fësal leen fekk ñooñu lépp lu ñu def ñoom la ñuy obéir mosoon mm. na fi am euh, Soudan euh, Oumar El Bachir bu mu jëlee nguur gi nekk militaire def coup d'état véritable homme fort bi Assane Toura bi la woon te kooku euh, religieux la woon mm. ñu dem nag ba ci kanam après moom mu daal di feeñal nguur gi Turquie Erdogan bi fi nekk président bu muy jël nguur gi daal di créer parti politique ki yore woon nguur gi dëggantaan Fethullah Gülen la genre seen sëriñ la di seen guru mooy rawoon mbir mi ba ñoom ñaar après ñu am euh, xeexoo hmm. donc moom euh, imam di ko ban jeu lay lay jouer actuellement nii man jàpp naa ne du dof ku muus la Euh, donte yorewul parti politique il est extrêmement politique natt na dooleem te du ci contestation bi la commencé mu ngi commencé depuis seen euh, problème yi ñu doon wax société yi ay affaires de de genre moom ak Chérif Nioro bi ñoom ñoo fa jëlee euh, Soumaïlou Boubèye Maïga natt na dooleem xam na ko am na agenda am fësalagu ko lañ taxaw ñu xool euh, fan la fan la jëm ak Mali. Mm-hmm. Euh, Abdoulaye Cissé. man je suis un peu plus <laughs> ose euh, je vais un peu plus ma ni Imam Dicko dafa toog rek ne bëgguma cest à stratégie la Imam Dicko ku ne xam na ni politique la nekk na ci institution yi ni mu taxawee ci kujje gi tey xam nga fal bu ñu la tànn moo gën a neex bi nga xam ni dangay ngay xëccoo te tey xëy na moom. def na de telle sorte que nit ñee ko joxoñ ne ko yow la tey bu deful sax nit ñi ne ko yow la mouvement bi nga xam ne moom la fédéré ne nañ ko yow la mais nag <laughs> tey bu Mali defoon situation bu yemoon sax tey Mali euh, président Ibrahima Boubacar Keïta jóge fi gëwma mu yomb ci moom mi nga xam ne mooy imam di ko parce que aussi attention am nay force politique yoo xam ne peut-être dina am transition boo xam ne dinañ gëm nii mën na koo jiite ci tegaat lépp ci raay mais force politique yi nga xam ne ñoo fi nekk force traditionnelle yi àla kuliyaan dañuy fësaat wutiwaat nguur gi parce que gëm nañu ni nguur gi warul des ci loxo militaire yi Mali war na romb loolu gëm nañu ni aussi Mali xëy na nguur gi warul a dem ci loxo religieux yi entre guillemets mais loolu ñun suñu réew yi ñoo ko war a dépasser cest à ay diw religieux la warul jot nguur gi ñun suñu réew yi war nañu dépasser loolu parce que aussi suñu réew yi noonu lay fonctionner c'est-à-dire c'est pas parce que nit nitu diine la dañ ko war a génnee totalement ci li nga xam ne nii mooy euh, jeu politique bi te tudd na fi imam di Nioro kooku aussi dafa nekk beneen personnage boo xam ne xëy na mën na tirer les ficelles ci biir ci mouvement de contestation bi sax am na ci ñoo xam ne tey ñëw jaaroog moom taal trop parce que yaakaar nañ ne am na beneen am na nu muy euh, nase ak not yoo xam ne nii xëy na arrangé wul ñenn ci ñi nekk ci ku jéggi nii donc dama gëm ni imam di ko tey taxawaay bi mu am pour jeexalee foofu. taxawaay bu ñu ko tànn la joxoñ ko ne ko yow la looloo ko gënal et puis ci loolu la nekk. mais bis bu yëf yi ne woon na këtt ni jonn gën alakul yaa gëm naa ni dana ko laaj mu tombe ci moom. Hmm, te mën na koo yor nag je pense que euh, ci ci côté boobu wane na ni xëy na am na gëdd bi am na personnel am na charisme bi aussi pour euh, jiite mbooloo mi maintenant Mali nag dafa toll situation boo xam ne tey man kuy xëccoo sax Mali tey <laughs> <laughs> <laughs> dama lay xaw a. yërëm waaw lay xaw a yërëm quoi hmm. parce que situation bi nekk nii bëriwul warul woon a bëri ñuy xëccoo pour jiite Mali tey. Hmm, na lu jafe Barka Ba Euh, jërëjëf yow tam sant la gërëm la bu baax a baax euh, ak moom ak Abdoulaye Cissé ñoo fi nekkoon kon ci édition spéciale bi nga xam ne moom la ñu euh, jagleel Mali laata ñuy tàggatoo rek dañuy wax beneen ponk ci xibaar yi mu di mbas mi ndax nekk na lu am solo ak tolluwaay wi ci Sénégal tey jilee kon jàpp leen ni am na juróom benn fukk ak juróom ñetti nit yu amee jàngoro bi cas communautaire yi wàññeeku ñu ne ndax mi ngi toll ci ñaar fukk ak juróom ñaari cas importé Mamadou Ndiaye moom mooy directeur de la prévention ca ministère de la santé. ci juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom test yi ñoo jot a def juróom fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif ci ñooñu positif am nañ ci ñeent fukk ak benn cas contact mooy ñi nga xam ne ñi leen wàll feebar bi te fekk ñu jaxasoo ak ñi ko yoroon. am nañ ci ñaari cas importé mooy ñu jóge bitim réew te ñu ngi duggee ci aéroport interna international Blaise Diagne bu jaas am nañ ci ñaar fukk ak juróom cas con communautaire mooy ñi nga xam ne dañoo jot ci doomu jàngoro ji te xamuñ ku leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee ci gox yi wala ci quartier yi Mbuur am na ci ñett bi na am ci ñaar Wokaam ñaar Bambey am ci benn Cambérène am ci benn coloban am na benn Diourbel am ci benn HLM 5 am na ci benn Kédougou am ci benn Xombol benn Kolda benn Liberté 6 benn Matam benn Mékhé benn Mermoz benn Ouest benn Patte d'Oie benn Popenguine benn Yarax benn Ziguinchor benn et zone de captage am na benn fanweer ak juróom-ñeent si suñu malade yu entré woon hôpital wér nañu bës ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee ñeent fukk ak juróom-ñett ñu nga réanimation ñu ngi sant yàlla amul kenn ku ñàkk bakkanam ci bésu altine bi démb ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaa njëkk ba Sénégal woññi na fukki junni yu teg ñaar ñett téeméer ak juróom ci ñi nga xam ne am nañu doomu jàngoro ji ci ñooñu nag am nañ ci juróom-ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ñi nga xam ne wér nañ si ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ak juróom benn ñàkk nañ seen bakkan mu des ñeent junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn ci hôpital yi wala ci loxo docteur yi. jërëjëf dañuy egg seeg yéen ci ponk bu mujj li yëgle kaay yi xëyee tey jii dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf taal bu tëët ak wet gu ne la ko yuppee lu ni mel daanaka moo sabab laaj bi xëy sampe ci xët mu njëkk anki dine kay coronavirus ji ak ni muy lawee ci dëkk bi bakkan yu bari yi mu fiy jël tax journal bi di laaj ndax deesu tëñ Dakaaru confiné ko amay kàngam di expert ci wàllu yu ko xamal ne confiné capital bi rek mooy li ñu mën a may jàmm ci wopp si fii ci ndakaaru beneenub scientifique bu jigéen dolli leen ci ne dafa neexut dégg rek waaye mooy li a am am fu lay tëñ gis nañu ne fi la feebar bi gën a wulee ñaay rawatina ci jamono ji nga xam ne ñoo ngi jëm ci a Tuuba directeur de la prévention di docteur El Hadji Mamadou Ndiaye journal enquête nañu doonte dàqul xalaat bu ni mel waaye nee na bala ñuy delluwaat ci confinement nañu ko càmbar biir ak biti source soo mel ne ko naan ko lu ñu ci càmbar amu ci wopp ñu wàccuñu ñu tey la feebar bi gën a rakkaaju ci Sénégal bilan démb bi wane na ko ak ñetti nit yu fi ñàkkaat seen bakkan juróom fukki kaa ak juróom fi la ñu toll ñu toll ak jàngoroy coronavirus yi ci Ndakaaru professeur Massamba Diouf mi ngi ñu wax ci Vox Populi ne lu ñu ci rek yegg ci pic ba baa ñu romb ko sax nee tiitangeeg jaaxleeg njàqare gi ñenn ñi am ci màggalu Tuuba gi ci jamonoy coronavirus gi mën naa bañ a demee noonu li ñu war a fexe rek mooy li ñu ragal di corona bi ñu seet nu ñu ci mën a jaare ak nu ñu ci mën a doxalee ba mu doon jëriñ ci askan wi fexe ba mu doon aw yoon woo xam ne dinañ ci mën a jaare informer nit ñi sensibiliser leen communiquer ak ñoom ci feebar bi feebar bi di coronavirus l'observateur ne nañu yàq na ba yàqal way bëggante yi am na benn waay bu koy dëggal ci journal bi di leen wax ne ki muy bëgganteel ab tubaab la bu nekk France frontière yi tax na mënatuñoo gisee ba ci bàyyante la ñu restauratrice mi ngi jooytu ci l'observateur di xamal ne jëkkëram am na lu toll ci juróom-ñaar fukket ak ñaar maanaam ba mu delloo France ba suñ jonn yàlla tey ñëwaatul ma nga toog France bàyyi ko fii ci réew mi mu nekk ci jafe-jafe te lépp nag li ko waral mooy coronavirus bi corona dil journal La Tribune moo ko bind ci xët bu njëkk mbas mi la wax ne mi ngi defar affaire yenn politiciens yu nekk ci réew mi ne coronavirus bi tax na ñu tuxal élection jéego yu njëkk ngir war dooraat dialogue politique bi ñi ko séq ñëpp convoqué nañu leen suba ci yor yor gi ca Sénat ngir ñu war a waxtaane ana ci yenn anam la ñuy wéyali dialogue politique bi ginnaaw ba ñu ko dakkalee ndax coronavirus bi dem nañu léegi ba xam xel ne loo xamul kañ lay jeex neexut a moo waral ñu bëgg seet nan la ñuy def ba delluwaat ci dialogue politique bi ku jéeg politique gi ci réew mi li ñuy sàkku ngir élection locale yi am ca date ba ñu ko jàpp la Sénégal xëy nañu ko yeggee l'observateur xëy ñu yeggee ñu tànn ngir mu doxal dialogue national bi li mu bëgg a xam moo di ndax Famara Ibrahima Sagna légalité na ne fan ak juróom benn ci weeru décembre 2019 ci la ko installé woon moo kub équipe mayoon leen ñetti weer ngir ñu war a liggéey ba defub rapport jébbal ko président de la république boobaak léegi romb na ñetti weer daanaka def na juróomi weer ak lu teg est lu mu ci tegati rek moom Famari Ibrahima Sagna dina walaabal journal bi teg ci waxtaan ci ak Ngouda Fall di kuy jàngale ak di gëstu ci wàllu droit li leen ci xamal moo di comité pilotage dialogue national xamal ne ñoo ngi doon màggal seen juróomi at sud gis ne grand parti parti la boobu alaaji ne du bëgg duñu ko def xel xalaatul ñu naan ñoo ngi ciy négocier par cas cambriolage gi amoon ci allée Centenaire di benn butigu chinois bu fay sàmba buy songoon ak seeni ngànnaay ba yóbbu fa 76 millions xëy nañu ci wax lu doy ñi defoon loolee juróom-benn lañu waa di division investigation criminelle jàpp nañu ñeent ña ca ña jàpp am na ci benn journaliste bu ñu naan Mamadou Baxaw Thiam am ca ku ñu naan Alioune di frère ci ancien ministre de la République keneen ku tudd Mouhamed Gassama di policier Ndiaye bokk na ci yi mu xëyee Saliou Ndiaye mooy xaleb juróom-ñaari at bi ñu ne baayam bi ko jur moo ko dóor ba mu faatu baay ba ñu ne àndul ak xelam li xew ak ni mu xewe journal Source A nañu moo di ca bés ba baay ba dafa jël doom ji sang ko ba mu set solol ko yëre yu set ci la jëlee kuur te xale bi tim ko la ca topp mu ngi ci page 5 bu journal Source A jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye kon mu doon édition spéciale bi ñu jagleel xew-xew ba fële ca Mali ci kanam tuuti di ngeen ànd ak Mamadou Ndiaye ak mairie bi ci xew ci biir internet bi maa ngi lay nuyu Mamadou Ndiaye di la ziar. lay fay euh, soxna Naata tey moom wax nga ko actualité bi mooy li xew ca Mali